أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازيق تاج العارفين mu middi kulli awliyaa irrahman abil abaasi ahmad ibn mohammad assalim ni tijaani wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi wa man nahaja nahjahu wa salaka tariqahu alxawiim ila yawmi ddiini wa ridaa llaahi alxaalid an salili uthmaan sayyid alxaaj maalik si radiyallaahu taala anhu وعن شيقه المجاهد الأكبر والولي الشهير مولانا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنهما وأيد الله ونصر الخليفة العام للطائفة التجاني والخليفة العام لجميع أسرة العمرية مولاي سيدي أبي بكر سي ومولاي الشيخ محمد البشير تال أيدهما الله ونصرهما rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim أيها المستمعون الكرام والمستمعات في إذاعة السفينة اف ام 98.2 نسلمكم في هذه اليوم المبارك ونذوركم فيه ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته e tabarakallahu gannaaw bi nu sante yàlla suñu boroom cant gu yelloog jëmmam ju tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi muy sayyidil wa alami shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu boroom yàlla na yàlla doollee rang ay garaat ak i maqaama ki nga xam ni mooy suñu wasila suñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mawlaana sayidi cheikh ahmed tijani sharif radiallahu taala anhu ak mboolem xulafaum yi nekk ci kaw suuf yëpp di ci jiital Mawlana Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu waaye tekki sëriñam ba Mawlana Cheikh Al Hadj Omar al Foutiyu radiyallahu taala anhuma di nuyu kilifa yëpp jiital ci nag kilifa diine yi jiital ci sëriñ Babacar Sy Mansour ak mbokkam mu tedd mu sell mu baax mi Thierno Bachirou Tall ñaanal leen yàlla ak mbooleem xalifa yi nekk ci réew mi yëpp yàlla mu yàlla may leen wér may nu ko may leen fan wu gudd may nu ko may ko mbooleem yi jullit ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nuyu auditeurs yi nga xam ni ñu ngi ànd ak seen mbokku daara al oustaz Mouhamadunil Mansour Fall ak seen mbokku daara Pape Makhtar Silla ci seen émission Miftahoul Houda ajuma bu jot bu 10 heures jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ci seen émission Miftaahul Huda nuyu leen bu baax sant leen gërëm leen ci déglu bi ak teewlu bi ak ànd ak ñun ay massawu sénégalais yëpp yi nekk ci réew mi ak bitim réew ci coonaak fitnaak coow yi nga xam ni jamono yëpp moom la ñuy jànkantool ak mbas mi fi fekkoon di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na fi jële yooyu yëpp ci barke yonentu alayhi salaatu wassalaam nuyu xaaji daawuda njaay bu sëriñ abdul aziz al amin bu cheikh seydi mouhamadul moustapha ko tey la anniversaire di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may mu dund téeméeri at ak juróom fukk yoo xam ni du ànd ak ordonnance dafay wér waaye lépp mu jaamoo ko yàlla subhaanahu wa taala yokk cofeelam ci diin ji yokk ci tariqa bi yokk ko ci kër seydil xaaji malik waaye yokk ci baayam ba soppeem ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin waaye yokk ko ci doomam ji nga xam ne tey moo toog toogaayu jur wa di Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Al Amin Haj Daawda ñu ngi lay ndokkeel bu baax nag tubaarakallahu ci tuuru Miftaahul Huda yëpp nuyu xaj ji ziyaar ko bu baax nuyu Oustaz Moustapha Sylla bu daaray rimbax ak ngay ngay ñu ngi koy nuyu bu baax moom tamit Oustaz Moustapha di ko ziyaar ajuma bu jot mi ngi ànd ak ñun ci émission yi di ko topp bu jotam bu ko jotam maye di ànd ak ñun di ko jël di ko dugal ci ay groupe yu bare bare bare si waxtaan yi et lool loolu itam ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm ndax mi ngi jàpp ci liggéeyu rajo Safina bu baax moom Oustaz Moustapha Sylla di ko ñaanal yàlla yal yàlla yokk ko ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu suñu soppi Cheikh Mouhamadou min Ngom nuyu tabaarakallaahu soppey Seydi Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu yëpp waaye beral nuyoo suñu jigéenu bopp soxna Maguette Ndiir tabaarakallaahu e, borom teraanga Teravel Tour nga xam ni tabaarakallaahu ziyaare bu mag boobu nga xam ni ci weeru koor gi at mu jot moom lañ doon def ci laylatul qadr bi dem Fès ziar Mawlana Cheikh Tijani Chérif radiallahu anhu ñu ngi koy waajal le 2 incha allahu mais ba le 11 allah ci kattanu yàlla ci lay nekk incha allahu rabbi di ko waajloo ñëpp incha allahu rabbi képp koo xam ne bëgg nga ci dem rek soo jokkoog soxna Maguette Ndiir incha allah daañ joxe ay numéro wala nga jokkoog ñun daañ la jox numéro soxna Maguette Ndiir ci wàccaayu dem ziyaare Cheikh Tijani radiallahu taala anhu wa ardaahu wa nabihi amin di ñaan yàlla rek yàlla yàlla defal ñu jàmm ci réew mi def ko ci réewu julit yëpp ndax jàmm ci la lépp xaj soo gisee lislaam sax diine la boo xam ni diine jàmm la yeneen diine yi tamit yu dul diine lislaam yi itam jàmm la ñuy woote ndax jàmm ci la dund gu dal nekk jàmm ci ngay mën a jaamoo yàlla jàmm yàlla gu dal jàmm ci la sa xel mën a dale looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni al fitnatu naaimatun laana allahu man ay xasaha yonent bi dafa ne woon fitnaa ngi neli di tëdd di nelaw képp koo xam ni yée nga fitna ak koo munti doon nag yée nga fitna mu ni xamal ni yow yàlla rëbb na la te yàlla ku mu rëbb mooy koo xam ni sorel na la yërmandeem su ko defee réew mi ñun ñoo ko bokk te mënuñu ko seddoo comme ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo niñ góor góorlu ba rafetal ko ñi ko yàlla teg ki seen loxo fi mu tollu nii nañ rafetal ba jeexal dem ñeneen ñi bëgg yitam réew mi tegu ci seen loxo ñoom tamit daan rafetal ba jot réew mi dem ndax lépp dafay jeex waaw loo gis rekk dafay jeex su dee kàttan ak doole kenn amu ko yàlla rek moo ko am benn nguur rek moo dul jeex muy nguuru yàlla wax na ko ci alquran qul illahumma malikal mulki yàlla nee na man may buuru buur yi amul nguur gu dul jeex xam nga fii ci suñu réew yëpp wala ci réewu àdduna bi yëpp bu dul yi am ay roi buur dañ la ñaari mandat ngay am dem sa yoon ah? mais loolu ba yàggul ñaari mandat ngay am dem sa yoon xooli ay firaw naag ñi ko jiitoog ay ñoom Namruus ak ñooñu toog nañu ci seen nguur yi lu mat ay junniy at ñi ay juróomi téeméeri at ñi ay juróom benni téeméeri at nekk ay buur di bummi mais dafa xëy rekk jeex luy jeex nag loolu jarul ñaawoo lépp loo xam ni dafay jeex jarul ñaawoo yàlla ni ci alquran qul illahumma malikal man yàlla may borom nguur gis nga képp koo xam ni fal nañ la nga nekk buur buur amul waxin la benn buur moo am muy yàlla mais ku ñu fal nga jiite na nga xam ni yàlla moo la coppatil coppati as coppati moom yàlla ca nguuram go may la waaye may bi nag nattu la ban nattu la dalay nattu xool maanaam dalay dalay dalay nattu mu xool lim la jox yow su la ko joxee noo koy téye su la ko joxee noo ci jëflanteeg nit ñi su la ko joxee jaam yi topp seen ginnaaw nga ëpp leen doole war leen yërëm nga war leen dimbali yor seen alal yor alalu réew mi lépp nekk ci sa loxo yàlla dafay xool yow nan ngay doxale diggante yàlla ak jaamam yim la booleel loolu kuy maanaam ku jiite ku nekk rek loolu war nga ko bàyyi xel ni man kat lii ñii ñëpp samay njaboot lañu maanaam e, njiitu réew même ñi ko mat maam maam ak maamaat dafa war a jàpp ñëpp ay doomam lañu doom doom ay njabootam yu mu jur ci biiram maanaam shawx ñeewant boobu ngay am ci sa njaboot ñeewant boobu ngay am ci askan wala réew mi la yàlla dénk nga yërëm liin ci lépp ñeewante leen ci lépp lépp itam nga teg ko ci yoon lépp looy def bul ci seet maa yor doole ji maa yor alal ji maa yor police bi maa yor gendarme yi maa yor kàddu gi déedéet xoolal sa digganteeg sa boroom nga xalaat ni bisa ngi ñëw boo xam ni yow dinga nga wéet ak sa boroom nga fexe ba boo wéeteeg sa boroom mu ni la Pape si Sylla nga ne ko la bayka mu ne la gàcce ngalaamaa la ma la dénkoon ni dematul am nga ay njuumte de waaye njuumte yi nga am jéggal naa la ko ndax li tax ma jéggal la ko xam naa ni du sag tayeef xam naa ni du sag jaay doole xam naa ni sa sa ñàkk xam la walla sa fàtte wala sa matadi kon képp ku yàlla dénk am réew wala mu jox la ndomba tànk ci réew ma wala mu jox la doole ci biir réew ma bàyyil xel si diggante ak sa borom danga ko bàyyi xel ñi la yàlla booleel da nga leen yërëm yonent bi dafa daan wax ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaa'i yërëm leen ñi nekk ci kaw suuf te ngeen ëpp leen doole te ngeen yilif leen te seen waaw ak seen déet nekk ci seen loxo yërëm leen leen ñi leen supérieur nekk ci kaw yéen tamit ñu yërëm leen yarhamu man fi l-ardi yarhamukum man fi samaa dama lay nettali rek ci wolof discours u Aboubacrine Siddiq radiallahu taala keroog bi yonent bi faatoo jullit ñi def ñaari kuréel ñi mooy waa lansaar lansaar boo ko déggee mooy waa madinatul munawara mooy ñi dëkke woon na munawara beneen kuréel bi ñoom ñooy muhaajiroon ñoo ànd ak yonent bi gàddaay jógee màkk wala bi yonent bi jógee màkk dëkk yi mu doon romb ñëkk fa juti gëm fàq ànd ak rasulullaay ñëw Madinatul Munawwara ñooñu li ñuy tuddee almuhaajiroon bi nu ñëwee muhaajiroon yi ñooy gan yi lansaar yi waa lansaar ñooy dëkk yi waaye bi nu ñëwee waa lansaar dañu dalal waa muhaajiroon dal bu rafet àgg nañ ci kaalidu ba ku xoola ku yor ñaari magasin Cerno eh, Seydou dafa bokk ci lansaar yi kaalidu dafa bokk ci muhajiruna yi suñu ñëwee Cerno Seydou day wax Khalidou man marché HLM Grand Yoff bi am naa ci ñeenti cantine demal nga jël ñaar yi ma jël ñaar walla nga dem jël benn bi comme commerce nga doon def ca màkk te bàyyi nga fa sa alal yëpp ndax topp Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa Samba si ni oustaz Mansour Fall comme yow da nga doon bay Mansour da nga doon bay comme danga doon bay te man am naa ay tooli tàndarma ah yu nekk fii ci côté aéroport bi damay te am naa fa ay tooli tool dangay ngay dem mawan la sama benn toolu tàndarma nga jël ko kenn ku nekk li nga am nga partagé ko sa morom séddale ko xoola kaalitu dem na ba ci saxaaba yi ci lansaar yi ñoo xam ne dañoo amoon ñaari soxna wala ñeenti soxna te ñii soxna yi ñu amoon ay yéeféer lañ nanguwuñu tuub dugg ci lislaam ñu bàyyi leen màkk gàddaay ñëw yoretuñu soxna nga dégg kenn ku ni moroom ji léegi man yor naa ñaari soxna kañ dem kër ga ma wàcc kenn nga takk yeneen bi ne leen non boobu bu ci bokk sallallahu alayhi wa sallam xoolal maanaam cofeel googu kenn ku nekk wan sa moroom léegi ñu ànd dëkk dëkkin bu rafet yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam boole leen uuf boole leen njaboote di leen jàngal ñuy déglu mu leen di yar ñuy déglu ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faatu bi yonent bi faatoo saxaaba yi toog waxtaan ci seen biir ni kan mooy jiite parce que yonent bi duñ ko suul duñ ko jenc ngeen baal ma ci baatu suul bi yonent bi duñ ko jenc ci biir suuf si sallallahu alayhi wa sallam te wuutunu koo xam ne moo koy wuutu ba pare balaa ñu koy jenc dañuy bàyyi dañuy am ku ko wuutu mais kenn du ko jenc te amagul ku ko wuutu il faut ñu am ku ko wuutu ba pare léegi waxatuñu ñoom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jël néewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jëmmam ju tedd ji tëj ko ci néegu yaay Aïcha léegi seen problème dootul ki nu ñàkk ni mu rëyee seen problème lan la mooy lislaam bi ak doxalinu àdduna bi kan moo ko war a yor gérer ko te mën ko yor ñu waxtaan ci seen biir bi ñu waxtaanee waa muhaajiruun ay dem na le consulté wu mooy ñi jóge woon màkk ànd ak yonent bi waa Lansaar dem na le consulté wu bi ñu waxtaanee seen biir waa Lansaar ne non ñun ñooy kii doon na yonent bi ci ñun lay jóge ci ñun lay jóge ndax ñun bi mu jaaxlee madinatul màkk fi la ko yàlla yebal bi mu ñëwee ñoo ko recevoir ñoo ko jox ay pàkk donte jënd na ko sax mais ñoo ko ñoo ko héberger ñoo ko jàppale ba diine ji taxaw kon su fi jógee ñun ñoo ko war a wuutu waa muhaajiroona yi ni non ñun ñoo ko war a wuutu parce que diine ji bi muy tàmbali ñun ak moom la ñun ak moom la ba dara du dara ñun ak ñoom la ñu waxtaan affaire bi commencé am ay tiraillement Abu Bakr Siddiq toog ni tekk bokkul ci wax ci jekk ba yàgg am ku jóge ci waa Lansaar ni moom yo Abu doy na ko Seydina Omar ñëw jël loxoom jaayante ak Aboubacar Aliin jaayante Ousmane jaayante parce que Aliin balaa muy jaayante def ni six mois après bi yonent bi faatu gaa yëpp ñëw jaayante ak Aboubacar léegi Aboubacar toog nekk ci misaal président ëpp na ko nag dama lay misaal kaalidu pour nga dégg waaye dayoom ëpp na foofu nekk président de la république gu Medinatul Munawara léegi ëpp na ko sax waaye mooy président wu mboolem ku gëm yàlla waaye boobu ci jamono ëpp na président wu mboolem ku gëm yàlla muy président wu mboolem ku nekk ci kaw suuf di dund parce que booba e, toog na ci siège xutbu su yonenti desoon romb na sa xutbu dem na ci maqaama siddiqiya nga xam ne su yónnenti desoon dana ko nekk maqaama bi mu taxaw moom aboubacarin siddiq benn rek a nekk ci kanamam mooy yonent te boobu yonenti jeex na ndax yonenti bi moo waxoon laa nubuwata baadi sama gannaaw yonenti dootul am yàlla ni maa kaana muhammadun ci alquran aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyiina kooku aaya alquran la yàlla ne ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam calale yonent yi maanaam yonent yi ma doon yónni benn ñaar ñett 123 ba mu ci accès mille ba mu ci accès yonent bi mooy 124e bi yonent dootul am gannaaw Babacar nag bi mu toogee discours Babacar bi rek laa la waxoon kaalitu moom laa lay wax bi mu toogee nag ñu ni ko liggéey xalifa yonent bi mu toog nag ci siège yonent bi sallallahu alayhi wa sallam discours bi mu njëkk a def laa lay wax biñ ne mooy yonent bi ñu sang yonent bi sang ko tëral ko ñu jullee ko ñu jenc ko ci biir néegu Aïcha bi mu faatoo ndax yonent kenn du ko déplacé fi mu faatoo foofu lañ koy jenc ñu jenc ko ci biir néegu yaay Aïcha radiyallahu taala anha fekk yonent bi waxoon na niñ koy def yëpp nee na bu ko kenn jiite yonent bi mu faatoo amul ilimaan comme néew yi ñëpp sàppe nii ci ginnaaw ñu ni kaalidu mooy imaam bi ñëw ñu ñëpp ñu topp ci ginnaawam non parce que mooy imaamu imaam yi moo tax kenn du ko jiite déedéet mag ñuy ñëw ñoom Abu Bakrin Sadiq def sàppe benn sàppe kenn ku nekk jullee génn jeunes yi ñëw jullee génn maire yi ñëw jullee génn xale yu ndaw yi jullee génn bi ñëpp jullee ba génn ba pare ci lañ dugg waajal ko fi ñu koy jenc jenc ko foofu muy tëraayam bu tedd bu sell ba ci ma madinatul munawara yàlla nañ fa dem ñun ñëpp barki yonentu sallallahu alayhi wa sallam léegi nag biñ ko jencee ba pare jenc nañ yonent bi nañ pare rek baabakar dem bind benn discours discoursu Babacar boobu nag képp kuy jiitu réew discours boobu war na nekk ci sa xel ci sa xel nga def ko muy sa muy sa ngànnaay def ko muy sa wusi sa lay lan la wax ci discours bi dafa nuyu saxaaba yi dafa sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa wan gaa ni te loolu wan na leen ko avant ñuy jën ci yonent bi wan gaa yi ni mission yonent bi moo jeex mission moom moom jëmmam li mu doon dox mooy moo jeex jëmm yonent bi mais mission bi nga xam ne moo taxoon yàlla yónni yonent bi ila an yarita allahu al arda wa man fiha boobu dafa jóge bu mukk boobu day dox toujours ci la waxe woon waxam juree ji man kaana yaabudu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna muhammadan xad maata wa man kaana yaabudu allaha fa inna allaha laa yamuutu abadan te waxe woon kuy jaamu yonent bi mi ngi tëdd dellu na ci boromam mais ku doon jaamu yàlla yàlla du tëdd du faatu mi ngi fi ba faw du fi jóg léegi nag discours bi la wax mu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglul wax mu ni gaa yi xam ni yéen yéen ci palaasu yonent bi yéen ma teg ci palaasu yenent bi yéen ma gën yéen a ma fal teg ma ci palaasu yenent bi fal ma teg ma ci seen kanam na ngeen xam lii ma leen di bëgg a wax maa ngi leen di ñaan lii ba leen bëgg a wax su ma nekkee ci dëgg dëgg su ma ci nekkee maa ngi ñaan yéen ñëpp na ngeen ànd ak man jàppale ma su ma nekkul ci dëgg yéen ñëpp na ngeen ànd ak man xeex ma ba ma tegaat sama tànk ci dëgg mu ñaar maa ngi leen di xamal ni tamit ku am doole su tooñee ku néew doole danaa jël xaq ki néew doole jox ko ki néew doole tamit su tooñee ki am doole duma xool néew dooleem danaa jël xaqi ki am doole ci ki néew doole jox ko mu ni nii laa bëggee ñu ànd mu ni nii laa bëggee àndee ko ñun jullit ñi kon loolu moom laa doon wax ni képp koo xam ne dinga nga jiite am réew taxawaay boobu nga war am léegi nag mu des ki nu jiite nan la war a mel ak ki nga xam ne mooy wut tamit nan la war a mel ak ñun ñi nekk ci biir réew mi di ci dund ak ñaar ñooñu parce que ñun dañoo nekk ci gutta xam nga gutta mooy bay na xaw seeni ki yor ba pare te ñoo ko fi teg ak ki yoragul bëgg yor te ñun la bëgg ñu teg ko fi kii di wax ci suñu nopp ndeyjoor ñuy déglu kii di wax ci suñu nopp ñuy déglu ñun lan moo nu war ma bàyyi Oustaz Mansour mu nuyoo ñu dellu si deuxième tomb bi. nuyu di lay ziyaara jël suñu nuyoo ak suñu ziyaar yëpp teg ko ci sa nuyoo ak sa ziyaar yëpp fa tabaarakallahu nuyu xaj sàmba Euh, nuyu xaaji Kalidou Amadou Ba ziar ko moom mi nga xam ne moo nekk tey ci technique bi mhm. nuyu directrice waaye ndokkeel xaaji Daouda jaay comme ni nga ko waxee sànq ñaanal ko yàlla yi nga ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz mhm. dañuy waaxu rek comme fi la fekk sa euh, discours bi nga xam ni moom nga indi te ñu ko ko sénégalais si contexte bi nga xam ni moom la ñuy dund boobu ak léegi rawatina démb ak tey mhm. parce que xaw xawtuut rek euh, damay wax ni xawtuut duñu gis oustaz Pape Makhtar si émission bi xawtuut duñu gis keneen ci émission bi mhm. bari na ñoo xam ne tey ñi ngi war a liggéey mais amuñu sens su mën a dem liggéey ah. oustaz ñett ñett nga wax ni actuellement ni ñaar ñoo fi nekk mhm. kiy ut ak ki yore mhm. ak ki nga xam ni moo nekk ci diggante bi muy ñun population sénégalaise oustaz fi ñu toll ci contexte bi nga xam ni diggante démb ak bërki démb ak tey ñoom ñëpp ana kenn ku si nekk lan mooy say responsabilité fi ñu toll. te ki nga xam ni moo yor te mu wóor ni ko suñu woon bàyyi naa réew mi sedd ak kii ut ki nga xam ne mi ngi ut te ñëpp épaulé ko te suñu leen suñu woon bàyyi leen ñu bàyyi ak ñun ñi nga xam ne ñun lañuy ñuy pamti pamtee ana lan moo nekk suñu lan moo war a nekk suñu devoir en tant que ay nit waaye en tant que euh, Euh, orientation bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam di jàngale si contexte waaw Mansour xam naa damay tontu sa laaj bi après ñu dellu ci ginnaaw ma jëli kii wut parce que wax naa ki jiite réew mi ni mu war a mel oh, effectivement léegi kii wut nag mhm. ni mu war a mel kooku loolu laa waxagul effectivement léegi nag laaj nga ma ñun ñi nga xam ni ñun la ñuy wut ñun la ñuy wut waaw mhm. ñun la wut parce tey soo xoolee li xew bërki demb nga xam ni du Sonko kese bu doon jëmmi Sonko kese kese kon dëkk bi kenn du taal pono kenn du taal oto mbedd yi kenn du ko bloqué ndax moom benn jëmm mënul loolu mbooloo moo waral te mbooloo moom lay wut ñu ki fi nekk tamit mbooloo moom lay wut ñun ñi nga xam ni nag ñun la wut ñu nekk mbooloo ñaar moonu war ñaar moo ñu war. ñaar ñaar. moo ñu war ban ak bu njëkk bi mooy Mansour te loolu xale yi sax laa koy wax. xale yi xale yi. mag ñi nag. non mag ñi defuñu dara xale yi ñooy génn ci mbedd yi moo tax. xale yi ñooy génn ñooy taali xam nga doo taal pëna man du ma taal pëna man du ma mer mer du ma taal pëna. Mhm. du ma gis-gis du ma jaaxal du ma taal pëna. oustaz xale yi taal du mag ña leen encouragé. mën na mën na am mais xale yi lay waxal man ñiy taal pneu yi. bismillah ñi nga xam ñooy avenir réew mi ëllëg. waaw ñoom nañ am xel parce que réew mi ñoom nañ jàpp ni ci seen loxo lay mujj. même su mujjul si seen loxo li ñuy yàq seen bopp xam nga da ngay dégg ñun taal nañ fi benn osan taal nañ fële beneen osan. Auchan bi doonte tubaab yee ko fi indi de xaw ma ko ko moom man xaw ma. doonte français yi ñoo moom Auchan yi ñoo ko moom. tubaab bi ñoo ko moom. doonte ñoom ñoo ko moom mais doo demee ci Auchan bi ay nit ñu ñuul ñoo fay liggéey. benn effectivement. ñoo fay liggéey sénégalais fan tey am na ñoo xam ne du ñu xëy. ay ay téeméeri nit tey soo calculer Auchan yi ñu taal yëpp ak total yi ñu yàq yëpp ay téeméeri téeméeri nit yoo xam ne du ñu liggéey te bu weer deewee kenn du leen fay. te ay sénégalais lañu. ku leen di fay kenn du leen fay. te bu dee Sonko moo tax nga taal ko wala Macky Sall moo tax nga taal ko yow moom euh, lor nga koo xam ni Sonko du ko joxaat liggéey Macky Sall du ko joxaat liggéey. xaw ma déggam déet. maa ngi lay dégg bu baax a baax a du ko jox liggéey Macky Sall du ko jox liggéey. te lim daj doo nga am xëy moom kenn xamul. lan daj fu ne jaabante na fa. fu nekk nga romb benn Pape Makhtar góor góorlu ay at mu bëgg oto munul fexe ba am oto di dajalaatu ay fukki junni ay juróomi junni ba am benn deux millions fekk benn jaaykatu oto mu ne ko deux millions yi ni man de oto laa bëgg waa ji jox ko oto buy jar quatre millions wala trois millions dimbale ko sawaay di suturlu ci oto bi buy dem rajo war ko buy dem ndakaaru war ko buy dem rimbax war buy dem ndar war bu amee conférence war di ci suturlu wala sax du oustaz ab njaganjaay la yoroon di góor góorgóorlu di daje dajale ba am un million huit cent jox kenn mu abal lebal ko ab kalandoo wala benn taxi mu ciy jóg di daanu nga dajeeg moom mu bàyyi njabootam ca rimbax ca kaw ga di jóg di daanu nga dajeeg moom taal oto bi taal ko ngir kan ngir Sonko wala nga taal ko ngir kan ngir Macky Sall wala nga taal ko ngir kan ngir Khalifa wala Idrissa te kooku dana dund ba dee ñooñu du leen sax teg bët bët bët nii bu dul ci télé yeeg photo yi du leen gis ñooñu xamuñu ko duñ ko defal dara rayuloo ko ba mu dee wet. moo tax man dama bëggoon ñaxtu bi ñaxtu bi. dañuy mm-hmm. ñaxtu. Mm-hmm. bañu ma ko ñaxtu man bañu ma loolu. parce que nit ki tamit su amee lu ko naqari il faut mu wane ni am na lu ko naqari parce que ki lay def loola naqari pour mu xam ne li muy def du yoon il faut nga wane ko doo toogee rek du ko xam. mais nag ci façon bi ñu koy defee man d' accord ma taal ay pono sànni ay xeer man loolu d' accord ma si. taal ay pneu sànni ay am na am na ñoo xam ni. Eh, ca ca lakku mairie Tivaouane ba ba léegi fi ñuy judd ak yow tey seen njàng fa la yàqoon na xamatuñuy këy. jeex na ah jeex na ma ndaw ñi yëg nañ ni total yi ñuy taal marque français la waaye station bi sénégalais yeeg ñoo ko moom. ñoo ko même même fii li fi nekk lépp di alalu France ñun ñoo koy liggéeyee man xool xam nga man lan lay bañ yàq yàlla dafa wax ci alquran wala tufsidu waxul sax fi sama yi xam na ni ñoo ñu du duñu yàq waxul sax fil jawi wala tufsidu fil ardi kon waa ñi nekk ci suuf baax di islaiha solution dafa am nit ñi ñoo gëmatul yàlla rek mais gis nga lépp lu metti yàlla joxe na solution wala tufsidu fil ardi bu kenn yàq ci kaw suuf baax baada islaiha balaa gannaaw bi ngeen ñëwee fekk lépp baax lépp yëwan am ngeen lu leen naqari am ngeen lu ngeen bëgg a dindi wa dacuuhu xawfan wa tamaan woo leen yàlla rek diis ko seen bopp billahi lazi laa ilaha illa hu xale yi ma gis ñu génn ak mbooloo yi ma gis ma génn yëpp ñoom ñi bu ñu jàppoon ba sell ni yàlla lii moo ñu metti fajal ñu ko yàlla fajal leen ko wa daawuhu xawfan wa tamaan mhm. man foofu laa toll nag fa laay waxe ci dimension la waaw mais du taal ay pono ak yàq yooyu man intéressé ma responsabilité wu taal oto bi ñu taal ah. te am na àq. Mhm. ndax alalu jàmbur lañ yàq. àq boobu ci kan lay lay dellu. ci ki ko taal wala ka ka ca kaw wala ñay ut wala ña leen dàq wala ña leen baare. waaw àq bi mu ngi seq mi ngi mi ngi dox ci ñaar xam ci kan lay dal. ci kan lay yee fitna bi. ci ki yee fitna bi. ak fitnatu naimatun laana allahu man ay xasaha xoolal ki yee fitna bi rek kooku la. ki koy yee rek ñaari cas mhm. ki yee ki indi fitne bi rek problème bi ki ko indi rek kooku lépp moom mooy responsabilité bi moom la ki yee fitna bi moom la fitne baaxul loolu tax yeneen yàlla waxoon ci alxuraan wil fitnatu mansour ashaddu min al xatli yàlla ne nga tëy tër benn nit rendi ko moo gën nga yee fitna nga tër benn nit rendi ko ak rendi ni mu garaawee nga rendi benn nit moo gën nga yee fitna da ngay rendi benn nit benn nit bi dee ñu gas ko suul yàlla yërëm ko wala yàlla àtte ci moom li ko soob nga yee na ay téeméeri nit dee xoolal diggante barki démb ak léegi ñaata nga dégg ñoo dee. wallahi démb ñaar ba léegi parcelle bi may xëy dégg naa am na ko fa dee léegi léegi suba. parcelle dégg naa xaw ma léegi la xaw ma démb. Mm. yëmbal démb dégg naa. am na am na am na am na ko fa dee. yaa ngi dégg. loolu mooy wal fitnatu ashaddu min al xatli fitna moo gën garaaw te xoolal léegi man bi may ñëw xale yi ay xale ay te ay xale yoo xam ne amuñu treize ans quatorze ans fii ci xaw ma yaasante càndum la xaw ma école bi la ñuy wax bi may ñëw maa ngi tasante xale yi génn ma ni chauffeur taxi bi tournel gaaw ñu jaar nii moo gën balaa xale yi di commencé baare fii te maa ngi gis ay xale yoo xam ne ay xale yu ndaw. xamuñu dara ay sixième la ñuy defal cinquième ñu ngi yor ay xeer. commencé di yoox léegi nag xale yooyu nga xam ne ñoom xamuñu lu xew ñu ngi yore ay xeer commencé génn bu nu dajeek am Pape Makhtar Sylla wëyu la bandi la sàcc la agresseur la lu mu wut lay am mais da ci raaxaloo da ci raaxaloo tudd kenn nangam nangam libéré diw Sonko nangam fekk Sonko sax farataalu ko sàcc la lu mu jëkk yóbbu taal oto jàmbur pour chauffeur bi génn daw mu jël portaabal ba xool la mu jot a daw rocc ko sàcc lañ. oustaz est-ce que ñoo aggravé situation bi. ñoom la. parce que soo xoolee ci internet tey da ngay gis ay ponkalu magam jëmm ay ay magam jëmm yoo nga xam ni kenn ki yaa ngi gàddu saako ceeb ki gàddu saako meew ku nekk daw uti foo jëm ak moom. démb rek fii am na ko ma nettali léegi ni ma démb fii lañ taxaw. bii bi ñu ko tojee ay nit di daw di romb fii ñii yanu saaku ceeb ñuy yor saaku diwlin xam nga kooku kaasoo bu fekkoon da ngay kaas di revendiquer am lu la metti diwlin ji doo ko yóbbu seen kër doo ko sacc doo sàcc ceeb bi doo ko soxla parce que yow da nga naan euh, maanaam am ku ni sunu démocratie la ñu bëgg jaxat jaxatee. ba bayal di sàcc àll jàmbur du yóbbu. loolu démocratie la yow yow yow kay kon sàcc nga yow. kon doole karaasi la. Ah, yow yaa suñu. suñu démocratie liñ bëgg a caxat caxatee du ma yàq yi fu jàmbur parce que soo yàqee osan jàmbur yow dafa too démocratie. yaa ngi yàq yi fu alalu jàmbur bul yàq. wane li la métti xam nga démb cité université cité bi. université dama leen di seetaan démb. ña fa nekk démb suñ ne am na lu leen naqari man dama koy gëm parce que ñun ñëpp dañoo nekk foofu si couloir yi rek yaa may dégg di sànni sànnante rek mais yàquñu yi fu jàmbur yàquñu dara. gisuma ñu yàq dara maa ngi leen di seetaan. seetaan naa lu ma une heure de temps ñu nga fañ nekk rek di sànni ak alka doonte sànni bi sax baaxul bu kenn sànni waaye génn ñu gisuma leen ñu génn yàq yi fi jàmbur maanaam tey suñu génnoon toog ci kaw tëli bi ñoom ñëpp ñu ni lu xew ñu ni nangam mooy metti làkku ñu yi fu jàmbur taalu ñu daam mais daal dañuy tëdd fii ci kaw tëli bi wane lu leen naqari bu ñu demoon bu buntu assemblée ñu toog ci buntu assemblée ba jàkkaarloo moom toog ci suuf ñu wax leen ñun dafa am lu leen metti bu ñu demoon bu buntu préfecture bind li leen naqari jox ko préfet ni ko mu ngi nii lii moo ñu metti man loolu laa yaakaaroon loolu mooy mars man man man man jàngu ma nag mais man bu ma bu ma doon mars man man sama waa rajo bi defoon lu ma naqari nii ah. dama ñëw toog si buntu rajo ba fee bind sama kii bi. doo baare kenn ku yegg. jox ko jox ko jox ko kii jox ko directrice ni ko affaire bi rajo bi lii moo ma metti loolu la kon li may wax mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñun la ñuy wut dañu am sago surtout xale yi bàyyi taal bi bàyyi sànnante bi réew mi li Serigne Abdou doon wax am na ñoo xam ne bu réew mi tàkk ñuy daw. am na ñoo xam ne bu mi tàkk ñuy daw. am na ñoo xam ne am nañ yeneen kër ay Belgique ay Londres ay Amérique ay France am nañ fa ay appartement ak seen ay jardin seen ay piscine seen lépp am nañ ko ba pare pare nañ ko ba pare. Mhm. am ay double nationalité double nationalité lañ yor wa sharafil Qur'an suy affaire bi naan rës départ nañ li ñu war a dunde ba bañee dee nekkul Sénégal mi ngi Europe di leen fa xaar. xam nañu suñu fàqee fa lañ jëm. fa war a dunde ba bañuy laa wax mi ngi Europe di leen fa xaar fii li lay wan ni ñun réew mi dañ ci war a jël ay xalaat xoola gisoo fi benn président bu fi falu fii Sénégal ba folleeku continuer dëkk fi Senghor bi mu jeexalee France la dem ba yàlla moom ko mhm. ñu indi ko fi Bel Air mhm. Abdou bi mu jeexalee mi ngi France tëdd mhm. lay Wade bi mu jeexalee mi ngi France tëdd lay Wade nekku fi doomam nekku fi doo doomaatam nekku fi ñoom ñëpp nga tëddi fële soxnaam a nga tëdd ñun rek. te te ñun war nañoo yeewu. ñu ne nekk fi di xeexoo ñun ñi nga xam ne du ñu génn réew mi ñooy borom réew mi di xeex di yàq suñu réew. Oustaz beneen beneen beneen beneen analyse ci lii nga xam ni moom nga wax léegi. ci situation bi ñu toll actuellement nii rawat rawatina yéen ñi nga xam ne yéen jàngat. di orienté waat ñu ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. dañuy gis ni souvent ki nga xam ne mooy ut ki nga xam ne mooy ut mhm. li muy li muy kaas kii ut tey li muy kaas su ñëwaatee ñëw moom mu toog ci doon kaasu gi ñay utaat loolu la ñuy kaas te moom moo ko doon kaas démb lan moo tax mu bañ ko tey te démb mu ko doon kaas waaw mais xam nga Mansour mooy la wax rek juin mhm. président mag sàll mii ci ñi wàccoon ci mbedd mi ci la bokkoon. Ah. Pape Moustapha Niass mii man gis naa ko mu yor xeer. gis naa ko ni mu yor ñaari xeer si loxo bi. gars yi jiital ko di gis naa ko. te boobu ñoom dañ doon mars. est-ce que nag ñun ndaw ñi ñooñu waratu lañ leen ne jaral ñu ñu ñu tayle suñu bakkan. déedéet déedéet jaraluñ ma ko de man di jaraluñ ma ko. te ndaw oustaz lan moo ko war a jaral tayle bakkanam. tey tey lenn te amatu fi mooy diine ji. muy diine ji diine rek moo jar nga tayle sa bakkan te kenn xeexalul diine kenn waxalul diine kenn waxalu ko bërki démb bi Moustapha Diakhaté waxee ci yonent bi bu gaa yi taaloon osan yi taal pono yi taal nangam ma ni doole yonent bi jar na ko nga doole yonent bi jar na ko buñ ko buñ ko manifesté woo woon noonu sax ma ni d'accord naa mu gën a wayaf mais ñii dañ ko jar yow tamit man kenn jaralu ma génn di taalay pono kenn jaralu ma ko kenn kenn génn di taal pono diine rek. sam papa daf ma doon faral di wax ni oustaz su ma demee entraînement bu ñëw. waaw mu ni ma xoolal ñu nga ñàkk ñaati kilomètre nga daw. te su ma la yónnee woon pikin bii nga ni ma nuy paas bi. <laughs> Ah, <laughs> dëgg la. su ma nee ñëwoon euh, pikin gi nga ni maa ni paas bi tey ñoom ñëpp a ngi génn yàq alalu jàmbur mm-hmm. manifesté wu mm-hmm. ñaxtu te amaana kenn ku ci nekk am na loo yónneen boo waroon dawal say waajur sax da nga ko faa bàyyi waaw sharif al quran wala ay waxtu yu la raw sax su ko defee man Mansour loolu daal lay wax xale yi nañ bàyyi génn bi bàyyi yàq bi kii wut tamit na wute ngor na utee ngor ngor kii wut bëgg jël réew mi na ko wute ci ngor wax nit ñi lu muy mën wax nit ñi li muy def la mu waxanteeg nit ñi tamit bu mu ci gindee bu ci dindi dara bu toogee. la mu waxanteeg nit ñi. bu mu ci dindi dara bu toogee. <laughs> oustaz problème baa ngi noonu nag. waaw ah, bu mu ci dindi dara bu toogee li nga waxoon daal ni danga koy def fës ko yéene def li benn magum yàlla waxoon Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. <laughs> yàlla na yàlla yokk leer. amiin yaa dafa am benn taalibeem bu ñëw ni ko Serigne bi man dama laa gis yow loo wax danga nga ko def. loo wax danga ko def danga mhm. def. mu ne ko loo wax def ko kenn rek moo ko jagoo muy yàlla. waaye man Serigne Cheikh Mbacke lépp lu ma wax fas naa yéene def ko. lépp lu ma wax. fas naa ko yéene def. Mhm. loolu la asgor di def. loolu la nit ku baax di def waaye digg fi wax nii laay def toog def leneen loolu tamit du sotti nag réew mi daal nañ delloo si xel yi Mansour. Mhm. xam ne ñoo ko bokk mm-hmm. mënuñu koo séddoo mm-hmm. ñi fi nekk ak ñiy wut ñëpp mm-hmm. man ñoom laa wax ñoo yem ñoo yem ñoo yem man moom man moom fi mu toll nii kenn doyu ma kenn kenn kenn xanaa ko fi toog ba ma gis rek kon ku laa naxoon waaw man moom fi toll nii moom euh, dama sonn ci affaire yi wax dëgg yàlla ci xaw réew mi daal mënu ma su su su suñ ma doon laaj sama xalaat tey si réew mi ah. Mhm. élection yi bu ñëwee xam nga lan laay wax xam naa nag gars yi Sénégal yi dañ naan kii dafa dof waaye ma xalaat laay wax nag ndax ci laa bokk damay bëgg ñu dem jëli benn américain benn americain man loolu laa bëgg ñu jëli ko indi ko ak ay ministre ak ay député ñu gouverner ñu. lu tax. ci lay tane parce que ñun dégg mag ñi ko fekkee nee nañu bi ñu bi ñu kiiwee. bi ñu bi ñu colonisé colonisé mag ñi ko fekkee ñoo ma ko nettali de boobu la réew mi gënoon baax tey li gënoon neex tey mag ñee ko wax de man fekkewu ma ko moo tax mu bëggaat ñu kiiwaat ñu. ñu coloniser waat ñu. xam nga déedéet du coloniser waat ñu. Ah, defaraatal ñu rek. non su ah. Samba. Samba Oustaz loolu du solution. yow tamit Samba solution laa joxe de. Oustaz indi woo solution waaye. attends Oustaz sëñ Babacar Si. radiyallahu taala anhu dafa am benn gàmmu gannaaw Cheikh El Hadj Malick. radiyallahu taala boobu waxtaan nañu ba ñuy bëgg a may suñu indépendance. sëñ kër ñëw ba ci buntu jumaa ji ci gàmm gi nekk ci oto bi plus de une heure de temps mag ñi wër ko di wax ak moom. Serigne Cheikh jekk ba yàgg jóge ca xam naa ni zawiya ba ca gàmmu ga ñëw ni lu xew ñu ne ko ah góor gi moo ni bu demee bu gàmmoo ba pare day def benn déclaration. waaw su gàmmoo pare day def benn déclaration. Uh-huh. ñu ne ko lay def mu ni comme dañoo bëgg a may suñu indépendance. day uh-huh. wax ni bu ñu kenn mayagum indépendance parce que ñoroguñu mënaguñu yilif suñu bopp. te te te te moom suñu Babacar moom sëñ Babacar. gars yi ni ko déedéet góor gi loolu ñëpp d'accord nañ ci wax nañ ba pare te yow ni la tubaab bi bàyyee xel ak ni la France bàyyee xel soo ko waxee dootu ñu nu may mu ni loolu lay wax parce que yëg na ni ñun ñoroguñu sotteeguñu yow tey réew mi tey fi mu toll nii ci néew doole ak dellu gannaaw tey man dama yaakaaroon ni xoola président Macky Sall Sonko Idrissa Khalifa ñooñu di réew mi ñoo ñoo waroon joxantal loxo nekk benn téendoo kenn ku nekk indi sa xel ak sa xalaat kenn bañ jiital sa bëgg-bëgg bopp wala si bëgg-bëggi nit ñu àndandoo kenn ku nekk li nekk sa bopp te nga ni mën nga yenu réew mi ñoom ñëpp kay bu ñu ko yenoondoo mu gën a mu gën a baax. mu gën a woyof moo tax man ma jàpp ni ñoom ñii ñëpp di wax kenn bëggu ci réew mi seen bopp rek lañ bëgg man loolu laa jàpp man Mansour parce que man bu ma bëggee yow eh Mansour émission Miftahoul Houda bi man damaa bëgg mu avancer. Mhm. yow nga bëgg mu avancer. Samba si bëgg mu avancer sàmba si day toog ci technique ba di def lu leer pour wax ji génn ñëpp dégg bu ñuy téléphoné mu ubbi mu leer bu ñu commencé amatul dara teg na téléphone am teg na lépp mi ngi concentré wu téye émission bi téye technique bi bu baax pour émission bi mën réussir yow nga ñëw indi sa xam-xam pour mu réussir man ma indi suma xalaat pour mu réussir directrice indi lim ñuy jox di ñu ko jox pour mu réussir Thierno ki nga xam ni mooy boroom rajo bi boo génnee mu encouragé la ñaanal la lu mu am jox la lu mu mën defal la pour affaire bi réussir. Mhm. ndax ñun ñëpp lan lañ bëgg réussitu. ci rajo bi rajo bi. Mhm. comme ñun ñëpp réussitu Sénégal lañ bëgg te mënuñoo joxante loxo àndandoo damay jàpp ni kenn ku nekk kon sa yëfi bopp nga bëgg sa bopp moo la tax di rayante waaye du réew mi réew mi ku mu tax di rayante du àgg fii man maa la ko wax man Pape Makhtar. réew mi ku mu tax ngay rayante yii du fi am. du fi am suñ joxante loxo ñoom ñëpp ñu toog ci jiite jaar ci yoon ñu topp ci ginnaawam jaar ci yoon ñu bañ a naxante bañ gasalante ay ndëgg sërëx yi nga gis yëpp kenn ku nekk da doon jéem a gasal sa moroom ndëgg sërëx rek mooy indi yi senti moo laa taxaasadu wala tabaaxadu wala tadaabaru wala tanaafasu wa kunu ibadallahi ixwaana suñ ko defee affaire yi dox waaye lii man ma gis nii lii doxul li may wax daal man fi ma koy jëmale mooy ci ndaw ñi ak ñii taal ak ñii saagaante ak ñii bodd konte tey soo génnee génn wàllu dëkk bi yëpp kenn liggéeyiwul tey. wallahi kenn liggéeyiwul. ñi liggéey sax ñi liggéey sax ñoo jéngu. tey bi amul benn embouteillage. oto bi day daw normal ndax ñëpp a ngi toog seen kër ndax ragal génn te léegi léegi nii bu xale yi génnee commencé baare mbedd yi yow doo ñibbi man du ma muy beneen problème beneen problème te. yàlla nañ ci yàlla musal te leneen mën naa la caa dal am Pape Makhtar mën naa génn yow kurisam di dem ñu ni ko ci manifester yi nga bokk te xamul sax lu ñuy manifester mën naa am ah wóorul di koy mi ngi leeralal boppam de. bu ba xoox jàpp nu kenn il faut nu jàpp kenn dawee ba xoox teew mën munoo daw. dañ lay jàpp rek ñu ne ci nga bokk ah te yow bokkoo xamoo luy manifester xamoo nuñ koy defe kon réew mi nañ fi indi jàmm tey jii am na ñoo xam ni ndeysaan par àjjuma lañ doon génn dem Dakar yalwaani yalwaan googu nu yalwaanoon vendredi ci lañuy dundal seen njaboot ba vendredi dellu si tey génn ñu danga fa toog duñ génn ak yeneen ak yeneen xaaj Mansour jërëjëf fajal si imam oustaz alxaaj Pape Makhtar kon ñun ndaw ñi ñoo war a xamaat suñuy responsabilité bu baax xoolaat xippiwaat suñuy bët xoolaat fan lañu war a jëm ak suñu réew fan lañu war a jëm ak pénc mi wala fan lañu war a jëm ak ëllëg ndax kenn ku si nekk su gij mbub li muy def su xooloon ni tey oto bi muy yàq su xooloon ni oto baayam la te xamul lan la ko jëndee nan la def ba papam am ko tey su ñëwee taxaw ñu koy yàq ci kanamam rangoo ñam tuuru mm-hmm. tey sàmba wala Mansour mu taxawoon tey di yàq oto mu wóor na leen oto papay Mansour wala Mansour moo ko moom tey rangooñam dina tuuru mu jàkkaaroog sa oto papa nii ñiy manifesté wu di ko yàq station bi nga xam ne tey damay wax ni marque marque français la mais sénégalais bi moo ko moom sénégalais bi moo ko moom leneen la même chose mairie bi ñuy yàq di ko lakk suñuy kayitu juddu ñoo ci nekk te amaana suñu lakkee registre yi ñaata sénégalais ñooy yàq seen njàng da dootuñu amati ay kayit préfecture bi di alalu réew mi réew mi moomaat ko nga yàqaat ko te du alalu président Macky Sall déedéet même palais bi mu dëkk moomu ko sénégalais yi ñoom ñoo ko moom suñu ko suñu falee keneen moom day génn ñibbi keneen na ñëw toog fa Oustaz Pape Makhtar wax na ko léegi ana sene ana président yi fi nekkoon ana kan moo ci dëkk palais ba léegi palais bi palais la palais Sénégal la ñuy wax ñun ñoo ko moomal suñu bopp préfecture bi ñun ñoo ko moomal suñu bopp armée nationale ñun ñoo leen di fay ci suñu alal ñi suñuy frère kenn ku si nekk sa frère nekk ci armée bi sa frère nekk ci police bi sa frère nekk ci ci ci euh, policiers yi seeni frère nekk ci biti ana kan lan moo fi jar ñaari sénégalais jàkkaarloo kenn ku nekk butti paaka war a rendi sa moroom ndax kan ndax mbubb bu Pape Makhtar war a sol tax mag sàmm ñu jàkkaarloo kenn ku nekk war a rayante te suba pam maxtar mii nga xam ne moom lañuy ñuy xeexal ba mu toog ci nguur gi wala Pape Makhtar mi ñu défendre mu toog ci nguur gi ëllëg duñ la gis xamuñu foo nekk sax 23 juin gi nii ñoo ci loro woon ba fi may tolloog yow nii tey ana lu leen état defal ana ñu yeneen manifestant noonu yeneen noonu yeneen noonu réew nag dafa am lu koy sàmm mooy kenn ku nekk xam lan mooy devoiram kenn ku si nekk xam ana lan mooy fam waaye kenn ku si nekk war a nekk un bon citoyen un bon citoyen nag du yàq kaar du tal puno du lakk os du lakk station wu sénégalais du lakk maire yi du lakk lenn ñun ñëpp lañu àndandoo sàmm suñu lu réew lu ñuy kaas nag mën nañ ko kaas comme ni ko oustaz Pape Matar waxee waaye bu ñu yàq alalu kenn ndax ku ñu yàq alalam alalu sénégalais la am na koo xam ni benn la mu jëndee otoom sax wala la mu tabaxee kantinam andi woon ko ci booru tali bi pour mu gën a jege nit ñi daf ko leb ana fan lay fayee ana fan lay fayee te sénégalais la sénégalais bi waroon a génn tey pour uti dépense tey amul depanse su suba fan lay jëlee lum dundalee njabootam suba loolu ñu bàyyi ko xel ndaw li nga xam ne tamit moom mu nekk si rumbux loo ko yóbbaale ak seetaan xamul sax lu xew tey ñu gaañ ko ci te moo nekkoon yaakaaru fameem te mu waroon a préparer avenir am te mu waroon a jàngi te waroon yàq métier maa ngi sama jarbaat boo nga xam ne ñoo takkaloo benn kër de seetaan la def te dakkaloo ma sel lañ dóor ci loxo bi ma nga hôpital xale bu yaru rumbux loo ko yóbbu mu ànd ak ñoom lu ko fi jar dañu waat xel suñu bopp bàyyiwaat xel suñu réew bàyyi waat xel kenn ku ci nekk lépp loo indi ci réew mi na jàppal ni suba dina feeñaat ndax ñi fi waxoon daaw ak daawaati jéeg ak at yi si ginnaaw seeni vidéo ngi daw ba tey te kenn ku ci nekk nag bëgg nga suñ la yóbbuwaatee voir bëgg nga suñ la yóbbuwaatee voir mu rafet lool lool lool lool dafa war a rafet xoolal sénégalais bu ñu gis si internet bi lacrymogène ñu dóor ko loxoom dagg tefet ba kañ ñu bàyyi ko xel kenn ku si nekk ñi nga xam ne ñoo jiite nañu yërëm nañu yërëm waaye ñun ñi nga xam ne nañu jiite nañu am yarte am respect ci ñi ñu jiite gën a góor góor waaye gën a bàyyante xel tamit suñu bopp oustaz yaakaar naa suñ ko defee situation bi eh, ñëpp a war a wax ñëpp a war a wax pour jàmm dal parce que yow yaa ñu doon wax ni ñu lépp lu waay mën di soxla su dee ñaar la jàmm am waaye su jàmm amul soxla benn rek lay wax lay doon. ci jàmm am tey ñun waroon nañoo waxtaane leneen ak yeneen tem mais sañuñu ko parce que lan parce que réew mi lañu war a delluwaat pour mu am jàmm ba pare. pour mu am dal ba pare. pour mu am stabilité bi nga xam moom la ñu soxla pour mën a liggéey tranquille fekk amu ko nag. kenn kuy wax ak koo mën a doon muy imam bi muy sëriñ bi muy président bi amoo loo mën a wax loolu fexe ba nit ñi nekk si jàmm Oustaz Mame moom laa la wax sànq xam nga lislaam diine jàmm la mhm. jàmm itam lay woote mhm. gis nga même xeex bi lislaam bi daan xeex ak yéeféer yi mhm. su daan xeex ak yéeféer yi ba yéeféer bi même su waxee ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fekk xàcci nga jaas yi jëmale ci kaw dootoo ko dóor déedéet parce que gëm na yàlla sooy xeex ak ba mu jàpp ci buumu kaaba gi nga bàyyi loolu yëpp boo gisee yàlla defoon ko mm-hmm. pour bëgg jàmm rek mm-hmm. kon jàmm moo gën Mansour mhm. sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mhm. mag ñi ne dafa daan wax ni soxla bu dee ñaar jàmm am soxla su dee ñaar jàmm am mu ne bu jàmm amul soxla benn rek lay doon ñu ne ko leen muy wuti jàmm ba am jàmm parce que boo amul jàmm loo yore da koy wàcc ah, loo yore soo amul jàmm da koy wàcc loo koy doyee soo yoroon ay millions bal yi di tàkk da ngay fàtte millions yi parce que dangay ñaan yàlla jàmm dangay ñaan yàlla mucc kon nañ nañ bëgg jàmm nañ ko woote nañ ko wootal nañ ko xëcc mu ñëw xëy génn yore ay xeer nekk ci mbedd mi baare woote woo jàmm jàmm ku koy woote da ngay toog bëgg tamit teg nit loo xam ni teguwul tamit soo ko bëggee def woote woo jàmm kon nag nañu wut jàmm suñ ko wutee am ko yàlla ñu yàlla defal jàmm ci réew mi def ko ci réewu àdduna bi yëpp Mansour ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ñu yàlla defal jàmm def ko ci réew mi def ko ci àdduna bi rawatina nag fi ñu nekk wax digg yàlla ci ci jamono nga xam ne jamonoy mbas la lool rek. journaliste boo xam ni yow maanaam da nga contre yow ku contre du la jox information bu wér. parce que ki mu contre du ko waxal lu baax. Mhm. man dama yaakaaroon ni journaliste dafa war a tëddee njaaxaan naay man bëgguma ko. Mansour Fall laa bëgg mais su sàmba defee lu baax ma wax ko su Mansour defee tamit lu safaan ma wax ko man loolu laa yaakaaroon mooy journal. mais journal ba pare man dama gis. ni ñuy présenté journal loolu. même àqu réew mi ak yelleef réew mi ñoo ko war a bañ journal boo xam ni su ma nee euh, nangam xew na fee léegi bàyyi sàmba sàmba wax ci ay xalaatam mais nag moom mooy jox réew mi ay idée loolu journal la ñun koy li ñu xamoon journal Ablaye Bari day ñëw toog ni RTS wala toog si kii bi présenté journal bi joxuñu ko dem yoonam keneen ñëw dem yoonam mais yooyu moom du journal réew mi nag bokk ci ay rajo ak ay télé yoo xam ne ñoom ñoo bëgg a taal réew mi ñoo bëgg a taal réew mi. oustaz oustaz si si jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, bokk na si li ngeen doon tere mooy siiwal lu ñaaw. wax na ko. xam nga xam nga xam. Eh, aaya alquran la mu ngi ci suuratu nuur inna alladina yuhibbuuna an tachia alfaishatu fi alladina amanu lahum azabun alim ñi nga xam dara yàkkamtuwuñ lu dul lu garaaw lu bon dal ci kaw jullit ñi wala dal ci askan wi rek ñu tasaare ko loolu loolu loolu yëg nga ni bokk na ci li gën a yokku euh, jafe-jafe réew mi ak taal gi mooy dégg nañ ñoom sàmba si ña ngay taal Grand Yoff waa Géejawaay nii ah ñii duñ ñu ëpp duñ ñu ëpp jot waa Pikine nii duñ ñu gën a nekk jàmbaar. waaw. yaakaar na Samba ngi wax ne oustaz. waxtu wi jot na fa tabaarakallaahu ñu bàyyi la rek oustaz. te yaa ngi wax rek te dégg naa xale yaa ngi Géejawaay de. Thierno <laughs> Hamidou laa jaar mu ñaanal ma. yal def fi jàmm def sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> tey moom li may tàggoo mooy ñaanu Cheikh Umar gi. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد امين يا رب العالمين واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم امين يا رب العالمين يلا في يلا في جمع